comme Sénégal foogila sax in way santa a yaloxe a paax ten fecin e ino wod fo ɓaal bo i ndako maad bo ndako xiid meke no émission Njoktoor

événement we andona ye yoon a faden to maade jumaling feke wo andona ye woxe jane fe xeɗan rogo yaal oxe jegna fop ale jane fan lang tokof njekonlana adwa nong na we andone gaden jir adef no hôpital ke fo we andone gadef pir ke a fo jir den xeɗan den no onoyo o jaabu ka para nene ten i ngenano ten o yaalo xe to dontano ten no faga budo mbago num fo makasin yaamo ɗayo mako la num tox tuduma meke na 107 point 0 fambe fo foge sereer yetanga nuune o bog nuun xarit nuun o ndeɓ nuun Aliou Diouf toujours fo xe refu teen प्रोजेक्ट तो फनून के अनुने तरफ उच्च संफ आदा से ada fasire raya aja, ada putusan ayah aja, putusan ada ayah aja, amosa, eh ada pakai alone rogmulu ya kalau amal omago, kino kita tara akap. te andoona yee o kookum rek a xaƴan o lakas kiin o kiin o saar ole fodoona fat o xooxoy ta waag xool e andaam ale roog o yaaranga o qol a war a ɗeetu joko njal Oussou uh, Ndiol yaam i njega le Fapal yaay ndaa i le fog seereer na nangilooxa in kam sax le fo village sax metoɗa nuun e nuun way nangilooxa la radio Témoin FM 107.0 meke na Maris i mbokk o ngol oxa andoona yee i nanree koy e inoor Colobane to xiid meke Maris e ngidma o fog ole seereer andoona yee owey nangilooxa jumalen ku refna rek ke andoona yee ten refu njoktoor ɗaap maak ne andoona yee a salmaxoor a maaka ke meke xeta e a mbaro mbaxtaanit ke andoona yee ten refu cosaan fo aada seereer Vous écoutez Témoin FM 107.0 a jeeyini muji mosna a no magola fi jeer faa ndok faa ballagala ceenga mata nek bo sax mak la nanel jurup euh, ndexo bal so ik maga oxa andone e te adwanu commune na xaga noxel euh, abla ndior euh, sim noxe andone te refu lamine diouf simna o le serer fop ndarta bo me andona ye te refu sax euh, maak la soɓ maaga yaal saate fa xaga noxe ibrahima diouf nda wagimo du euh, mamadou diouf fegor fo ten fo andona ye ɓaslen den fopo nda simna xe andona ye te yoq a fapa xoyel euh, ablaye faye simnan simna ɓaslum fop yimɓe gal bajul ka rek no ciyamim ret simin we andona ye den refu yay makka simnaxe andona ye te refu naar sengor leyane yasam rogo yalla xocitngo xuɗo ñis fo owod fobal nda wagimo wet xadi mbulo jaga sen fasa sen fa ndenjor fexe andona ye te refu farsi fexe andona ye te refu yasaklin mari ndior denin mari dioufin fo yay makka no yokorta maga fop la dene yasam jam nuna min yalla fa bañana oxu jeguna we Many men are markmen, many men are markmen, many men are markmen, helona lam tadano. Wa merime ona makmen maga rimtem jurup maga matum nda ɓerkamaga simnoxe andoona yee ten refu maire Doubaye Aïda Diouf chéri Ablaye Tall maxey simnanga paax nda waagiim o weecit euh, yumpa ñomboɓ ne Awa simna o chéri es euh, mbaat chéri Tall Bouya nda Fatoumata Faye euh, madame Badji maxey simnanga paax simna salma koor ale na xooyel Bounama Diouf nda waagiim o xe andoona yee ten refu Grand Mbaye et ne'el Babacar Diouf nda yit maxey simna Ibrahima Tall xaaga o ndokores o nda Coumba chéri Mamadou la nu ne rek tamba mbir xana jeg ka andoona yee xan i mbaxtaantin xan i mbeto téléphone ale yoonin fo fogole seereer na nangulax in kam saax le fo gila saax yaam kam laya ye ku jegna no saate fe a seereer o raw ɗeg taaga o ɓayum im luɓa faley fe tokorwalina laya ye cosaan fo aada seereer a goklaxanga sénégal o wondoxalanga en bugu witan serer we serer atodo ko no senegal o woso ngan ando ko lemba yulandi ki bila yulandi ki dembika ka yo hodil ne ka

kimérok metomuña laye rek tamba mbir xani waxtanit ke andone te refu nana dar ke taxna jamono fexe o leng wagate nan kilifa ke layanga nan kiro pap ke layanga nan kiro o mada layanga nan kiro xa warula nana dar naga xa warulun mando Yolanda oga yoga Refago wali warefka Refago wali warefka Khanu ref non de bandong Waaw khanu ref Ada ada bandong nda o ndeɓa ndonkanana puisque o xene lang ka et ngo an mbit te ngo an aco i nanan kilifa ke nanan wajur ke ñoole ka faga te taxu bo jële xicior na gambel ka rek e jidma we ando naye den ndefu touba khaira wagawey eh, cité eh, safko kër masar eh, mbe da def manam ma andone te tournal serigne assane gedjaway waga defu touba khayra ambiya tialel kulo bi tategin arfo njajonga xol na

ba waxey lamta fog we sereer a inoxa ngenoox andama leye fop a ngenoxa a sinig bo a mbey simna xe andoona yee te refu Elisabeth Chéri Edouard Sène cakan Sène maxey simna i yoona fanik sukulum Moussa Sène simna xene Yacine Chéri Raymond

wawɗa ndiguili yon fo o paal taxe o ref o paal nda andama ɗe dami ko jegono bo pare sogo wetoxa nda yakarama le nu nga nof ke nu nga den ma we nu njuum ke simna rek we ando den nde fidel auditeur fo fidel auditeur ke topok na en djumalim fu refna nana te nana njem a ya baaraam xesin nang Jean-Marc Faye waag roog we nda Cheikh Ndior fañ a dene Ibrahima Taali yen maxey simna leen Oh mama ye oh la la ye ye garima oh oh garima ndaa nuun rek da konam to xa gidma we andoona ye rek den a nangilooxa la radio 107 point 0 o lakanga ten a seereer tendoononga fafal kam leya rek i ndamranga xa ɓay yoon i mba ngoɗ Thank you. simna rek eh, hakora ha andone o way bo sate fa ani el eh, henri ndior dene henri ba homin da wagimo wiccito andone de defo asc mbar fay wena yokorta jurpo jojor fof pierre kat fa dioufin dib ndior yal jurupo eh, dene joseph diaga fay fof xe simna den dene moussa ndior moussa o xay bo saxle andone te refu jigen sor da wagimo wet djibi fayin joseph ngorgui in dene ousmane fayin maurice in waga groupe ndioforo mbogu e jamman jomde euh, nin euh, sene ndiayi waga farƴemo anan giloxa émission joktor nda yit euh, xam ret bo me ando naye te refu malika soɓik maga oxe ando naye tene madame gassama ndey tako diouf maxey simnanga paax wa joko njaloxe andone te refu nik sukul andama le koy inortangano nik sukul i yon fexe andone te refu mbay njay e inan gilox ke mbay njay lay i ndakoxid

da da me o waynen e gilo xam amere la ani en ramata mane ibrahima senghor bintu mane fat badjo fu fat jawne fatou seydi o waynen gilo xam jokto Kurif xu refna jangi حصل ما كره ماكل انا ناكل فيها ما شاء الله حصل ما كره رفنا كالوكتو ما داك انسير لي اخينا نقلوها ايميشون سيدنا اخي انا نترفو خدي فالسونكو لا خمر بوكا انا ترازيم برسينا اجدان ادراميلي

a retanga bo pikin i kotof soɓ maaga oxe andoona yee ten refu Cheikh Omar Diop Fleur a layaam ee retaam Tunisie jang xa kiid xa ɓaxay fo xa kiid xa ɗak ko o fi'aa ka felaxam ndaa kaam waadnan no cosaan wa sayidina omar sall jangi ambay ndiaye o xaaga refu o yal mon miracle yal xa geerañi o tuklo oxe omar sall jangi kene im ciyo xeɗana eh, xe andoona yee ten refu isamaak rek yasam bubuk tokom o oh, xaga xarit mbay njayere u a xurogana tering, a na teralin mbay njaye nanangam a anda la ya soka le commandant de brigade des sapeurs pompiers abdourahman diouf jumalum fu refna jega ne 17 h bo 19 h sa bo njaajay fatine soɓma o tew maak o xeno xeyel nga Diouf o xaaga ref chéri Aliou Senghor leyne simnanama Daba Faye chéri Ndoura simna a François Sarr fo nde ɗike den Ibrahima Faye wagirongo wey émission joktoorno 907.0. point makina ɗaɓ makkinene jega jumaling fu refna waxtu etik bo ɓeta ɗax fa asal salma koor o maaka La leya ne ndam yo indam ndam o saarole

nder bugo ñotna faap kaga lang jamme leyu i ndet ret bo saax le andoona yee te refu jegem soɓ maaga o tew maak oxene lay Dibo Faye o xaaga ma i so nda a fegoor fo xe andoona yee te refu Awa auditrice euh, Mbose Sene Série Tamsir Thior in way a paax nda i mbaagee mbet euh, Cheikh Sarr euh, fo Ibrahima Ly nda o tew so xay maaga a xooyel Yaya Diallo Chéri Adramé Ly simnang a paax simna xe andoona yee te refu Pape Sarr émission Njoktoor na 107 point 0 im rokonga pour cok rek xam soɓ maaga a saltike fa maak fe na xooyel Maysa Faye a fegor faxe andoona yee ten refu Banda Tine Boubou Sy fo Gilbert Diouf Tako Ly maxey simnang simna a naar si alere tim dakar do ami xam sour bo me andone te refu joal sok maga asal ma koron xel modou ndjay sok maga te o mako xey mbayang sar fa binta sinna amama ndour fo xeno te ref awta lang jamme o reta nge Dakar mi xam suur bo mbuur soɓ maaga o tew maak oxe na xeyel Khady Ndéne far yel Ndéne layne ñaan ke mbadida yasam roog o yaal xe jaɓanong e simna xe andoona yee o teeso Mame Thioub maxey simnang ndaa ndey ko du o ndokoes waagino weet ndaa Seynabou Éthiopie maxey simnang pour le grand Pape Gueye maxey simnang émission njoktoor simna xu andoona yee a salmakoor refa ko ñoo kam Sénégal fo Gilassa simna xe andoona yee ten e soxna o xaay bo Mbour a pegoor fa nene fa xedi geej kumbu fa ibu maxe simnang nda Mbacke jangi kene wo jegu a Jean Pierre Séri Elisabeth na simna tirondo ba Espa Issa Diouf soxaay bu ëmb. sinnawe andona ye owe topa in no facebook fe anan gilo xa in nana ten salma koor maak le no xeyel Birane Sène a modna bo me andona ye anan gilo xa o xaaga refo Aliou Dia Aliou Dia a fog no retrouvaille cs tour bo me ando naye te refu Outa Teguine soɓ maaga o tew maak o xene xooyel Asta Faye astu o cegel Adama maxey simna waagimo yoq te menge Diouf ene ref lang jame a salma koro maka le andona ye a miña bigala sereer dal langa yelef tokum xaye sereer yo a sinig ba mbe o nangiloxa la radio 107 point 0 nda mokanga kama njefeer ale xam simna Awa Diop simna Dama Sarr facilement fa daba nda nde ju fatata ali wetit ima noon reta bo port autonome de Dakar simna xe andona ye ten refu Ousmane Thiané Sarr Lene simnanamo jour o maak ola o xagna xëy Douglas Faye o waago waay bo port autonome de Dakar Papa Ndiouma Sabadola jangi ken oxene refna jame a gima na 107 point 0 mete refna Grand Yoff o xaye yena a lax Masin Ousmane Thiandoum wiin a ndef me andoona yee te ref atelier Ndefleng Ndefleng Couture o way ataya a na gilooxa émission Njoktoor ndang yo lang jame nuun njegun

waagowenen gilooxa lancé 7.0 wa joko njal a paax a paax i yoon fo xe andoona yee ten refu Bara Awa ke ta layna na kiim a ten o xene ndaa bo i nqel no suura koy xan i ndet bo me andoona yee te refu Grand Yoff e simno tew maak o xene xooyel euh, Ndeye Tewo Diouf o xaaga na dega na layel Mame Tew simnan a paax a paax simna a salmakoor ale ne xooyel euh, Ibrahima Niane Abdoul Aziz Diouf Junior fo Abdoul Aziz euh, Senior me simna den a paax a paax a paax

masen leyne simnanama ami Fay amadou seri sar maxey simnana refna binta cilaw fo la maxey amie c'est la yin ami saxo à nda awo buru mais maxey simna la agaji décliné fi on no talile sinna sanu in abdou dioufin la honori wagirongo wej ta bo liberté si simna osal mo korone xel pa moussa diouf série 13 ba aïssa fo mohamed simna te waxe mako xene xel joro diata jor diata o jola xano nage tarde a émission joktor Ibrahima Ngabo université xam soɓ maaga a salmakor maak lene xooye Aliou Faye soɓ a Awa Dioufine mbit Awa Sandiara nda Kory Diouf a laya xame mete refna université xey fudooxa a lang émission njoktoor oxe de'ta maaga im gidma koy ñaana ke refna xe étudiant xe université Cheikh Anta fop o andone o sereer refa rok maxey simnang no gonof fo simangolof dako leya nuun e ngorgoloox yo rek a jega ke in nuun nu ngar mene dakar mbaɗe no ngotin ɓekin na kubos ke nuun o ban mbici cosaan fo aada koor yu maxey simnang simnanama aliou faye simna kilifa ke nuun ndefna maaga elwa ibrahima sarr anda me nuun ɗeetanga na den xan nu ngorgoloox résultat boo may andoona yee te refu yoof rek le grand mbay maak maxey simnang o xaaga refu chéri Maysa Gueye Astou Gueye Bab Elimane Diouf ke andoona yee te refu Baye Issa fo Ousmane Sow nda Waly Diom waagiroog o wet o xaaga fidèle éditeur njoktoor o simnang a paax Waly i yoon fo baar rek sogo yoon fo a salmakoor maak le andoona yee a waxtaan in no ke andoona yee ten refu a Ndandar ndax a Ndandar a ref ka ndax na Ndandar a fo koor oxa andoona yee ka jangna o koor oxa ka jala na seereer o koor oxa andoona andan fo gila sa no xeyel Philippe Diogoye Sarr nga Parcelles Assainies xam soɓ maaga o tew maaga o xene xeyel Awa Diouf xaaga refu Chéri As Mbaye awa simnanaam a as to o ɗeetanaam o ten simna Aliou Faye fa Bakary Dabo nda Pape Ndiaye waxey tax sile maxey simnang Soda Diatta yaal Parcelles maxey simnang waaw lang jaame o leyanga taw xam le taw fa simna la xalifa fe andoona yee te refu xalifa en ɓasil ne o xaaga no xooyel Ibrahima Diouf Chéri Dibo Ndiokh a fegoor fa Etienne Diouf fa Aminata a paax me weta ɓenge mi Blaise maxey simnang Ndeye Dibo xëy na giloxa 107 point 0 nda fatoumata madame Mbake in way ndeta xa ɓaya xe nda Awa Diouf taw a yeete kam golf simna xe andoona yee ten fo Marie Diouf waaw Malick Thiaw wiin we way nangilooxa

Edmond Diouf Abdou Diouf Yal Niakhar ndaa waagi mo wete Mamadou Diouf KP policier fa Baba Niane Mbeng Mexe simnang simna Ibrahima Diatta fe Ibrahima Ndour ndaa a salmakoora maak ale andoona yee te refu Yal Saloum sanga xe andoona yee te refu Imam Ndour fa Ahmed Gakou émission njoktoor na 107 point 0 meke يونتين فخرت نونو ندب نونو علي جوفر فو بادوخي اندوني تلفو نو لقا ميكرولي اجو تنا نون كي مدنا فاخنا جو سان فو ادا سيريل سيريل aku gidma wa université presiden mboka torna rek anan lo xa émission njoktor ila dene jega mo dayo maak yamo leng ne jega ngeluma simin bot to o kigima xu gimna rek ba coxo kendo o yakare o xaga moƴ fel mbay njaay lang jami nik ke andone o dawi serero saa boo géejewee rek suñu waxee am na tey fu Ndeye Ndiaye nda waagi mo wete fa Lamine Sall simna fa Sambou Sarr fa Fat Sarr suura bo me andoona yee te refu Thiaroye soɓ grand colonel Khar Diouf le colonel de l'EMAP ne tarde a émission Njoktoor faga ref Serigne Astou Faye nda Coumba Sandiane yalo Ndoundokh maxey simnang o xaga ref Ya Maymuna Ba fa ñilan Faye fa Siré Ba depuis que ref simna fa Diene Sène nda Ablaye fa Bassirou Faye waag mo wetedel alima o ndoko res jangi waaw o fogole sereer koy andam ale i yoona nga fo xe ando naye te refu Bara Botoma fo Kima le e ne leyta numa nuun rek xan i ndok waxtaan le ando naye ke ref na a Ndandar i ngaƴo nuun fo a salma koor maak ale ando naye ten eh, Philippe eh, Diogoy Sarr a refo cajangin a sereer a refo xa ando naye e eh, roog moƴu ka waaɗa na cosaan fo aada sereer aɗa fof ha anone ñaal foyen ka jala aɗa fof ha anone e a wara damtel aɗa fof ha anone a wara rugel nof par ce que ke ta leya kat e yakarama nde awa yok euh, mboɓ ne to kam ne comme faak wage dako xid ate i e ngot ke andone te faaxu faak mbokatin fo xeye ndaxu fetola feet i mbago jeg ke i ɓisloox na i nan giloxa Philippe Diogoy Sarr nananin arefanan afianan kita buguna nda okino ke kana nadar ten tahu ke nele umna nadar opo ges nan geliwi nanan do dar nadar somo badar onan nono fasaha nanan asaha no hen songor fo kan dokan adar naga api of hano bugo falungu bogel no cipuel dami odamon dimleyo to bara owas teho fo oy mus moseno mbid dans le Vous écoutez Témoin FM 107.0 bajamane dok luang muk borok no kantel yang kantel kajelo malpat male to yong ti maten mo yong kanywa nana ar adama aduten ndaw ma trevi matrevi ojaf kole na jif dadang nana ar waru fa ko fire of to ore fangan kana warong patokel kel fa'tel delem hurtel ngol ya mo up na digil no mak warano maɗori maɗax to do no dakin ya mo fel fak o sa mo moƴun ba an la laala paaxeer adna na kong ɗof bo nanan na qica barke so na ɗar asalah. ja a na dal siko fo sa oxu na koy o sikel nananam kale yacer jer anaɗar awa awanya kama o ñowno kiin xatu ko a nananange ke muta rokna a ya koi bajab bajaab da xa'a so fi'kiro a nunu falwa roog so adna ka ina naxir nda ke na mereƴa fop refe wurs fuut ka leem wel koy o gulu moƴ uta ju'uɗaniro o ñak o ju'u moƴun roga fongon na lang o hajin fongod mai kiro feli kiro yaga koy godi sai tani katta godong yam kari to fam ko sarnak doila tabugo nala arjege jabat ya arjego ndare men bare men tunan kiro yam nof nanan nokoh barke saka nana ar odiro ko hudiruna tadoro ni welof bot koy to ka fanyden bonu bada alam ko rek fat fat kel fan ogita yiif yama muk duwer kat ne serta oga baxes ke mona so tunu fa nga kinan bo jak wara sax jan xoxa mas nu fi ono mas fogof yaga kat fodi ombit to day no wokof ya pis na yoyna ten mo joxe mona ko rek gayna ke xoxof yam wasi a cafes ten ti yona ko jamba ke o oh, halaf ka dayiro no yaga de tino gedo fulayam geten faako refe xaye to feto taxin no naɗar dal ka woraɗar to guuɗa roog taxe jeg me asi go me a sigoya godta xa can naak o ma basi anda me saxat kiro go pokes fog fa faangu to fogu ku refna fogu bore bo da o wongoyoy andiran roki tof xano xanof ase ko so o cege caqaɗek caqof nda gi no bal bo saɗ ko ho bo nana ɗar mofa ɗar ko den badir wa me dara refeer na ka me wo saɗ ko xoox waagiro waafiro nda laalay mbage nanan mbagu korik waasi ke rooga waasnorang so dam ke dam damnorang bo waas ke kero ke rooga waasnorang xana damong bo wis du to waaskirang roogo xeleange bara o maaro xana hanani bonima roga hantan yaamo ñowof o xirwa yaam jegado ñisof roga xoyang na qolan ndiko babu o xurulu xurno niɓaan yaamo bugof roga xoyang ya ɗayof ndiko ɗayor fo ten o ɗaya pep yaamo fudof roga regong mbumbaay ko mbagger so o regeju mbumba reta na koɓ korik bare fu jaaƴo ngurit kaan nayo o mak mak fado jabo asir mbediyonof to nanan kame nayo vous écoutez témoin ya, FM 107.0 pfet yam haye beso o fetare fa betata faber wuru deka to ko yel o bo hongangat ahumel wajan aplan at adikel ace kalena copa don mabolin yaga ko to kurat na men kerjen tu mes kiro kerjen na mes katange ጀርጀሉን ካማዛ አኺስ ኺስ ኸና ሙሱ ሙስቱ juliti tam ajulik katange julitum kayo bojun ko gota jambel kere kere nono tam Ibu ya, kampung nako ikurik do ne nono bayi nono ibu kampung nako iya kakat gai onyo do ande ojek warga lina jik wahaso mbanyim na wapagin dan tahu kai lima nono pasil nedam ah. fo okur jalal den ñam jaɓaɗar dar feden nanɗar rimu andaɗar mayar arima yar waɗar yar waɗar arima jaɓaɗar ari ma rok waɗar rok waɗar arima ñir waɗar ñir dar arima deyaɗar deyaɗar arima dar, waɗar dok waɗar den rimu awon wond waɗar so empat hoɗen den a ref kuɗaɗar yakat fat ɗimoytu dar. wa jokonjal uh, okoro mako haga andune alaya falay fa jegu solo fene na andatar nda ke mujma wago dam ten rek te refu ye lalay mbage nda nanan mbagu andamale ati koy xan imbet ke andone te refu téléphone ale nan gilox we andone den refu fogole sere nan gilox en kam saxle fo gila e eh, deno de ɓisid teen xalaat den ndax euh, wena nana de mbagu ndax wena leya de mbagu xa tax euh, adna fe i mbodet ne ndiiki wiin roog moƴu mbaagate njego nan eh, kilifa ka leya nu nan ke euh, kilifa kilifa diine e waajur ke leya wiin nan ke xa warolu kaaga e ke warona kaaga aussi xa waagu rim to ke ta waagna rim aussi i andangaan bo pare i njeem o ke andoona yee roog seen te waagu saafara in yaam kam lay ee ɓasil seereer moom na yaroor na na yaroox yo ɓasil sereer moom xar ɓasil oh, na andoona na o nando ndaa comme adna ka ñaaya koy yakaaram ale e eh, o fog sereer ana reta bo ta mbamir xa ɓiy in fo xa tokor in a jeg ka andoona yee e ga o ten kay adna fe ka jaxaso to kiin o kiin nem laytan rek o leŋ ne jega ngelum a simin ɓot andaam ta mbamir i yoon fa nuun a ngiloox ke andoona yee ten refu Yande Codu a laya yee bo fi fi'a tig waagen ndaa Philippe Diogoye Sarr ke ta fi'a a waagan machallah

maga refi mbiyo fo pa'isa bigi fo tamsir simna a keɓa sesen ndiaye me simna korof reta bo fas ma o soɓ maga o tew maak o xen xeen siga fay fa awo fay o xaaga ref séri laxad jaw laa numéro nu bëgg ngaa mbokk numéro 77 532 31 04 77 532 31 04. kenn Véronique Bakhoum fa mami Fallou Deme. ndaam retanga Guédiawaye xam so maaga oxe andoona yee xana xooyel euh, Selbé Niadi Selbé Niadi i sen njarkam oxe simnanga paax Yasam jam famin o xaaga ref o semir ñilan de Njaay fa Bekay fa Semu Njaay fa Abla Yasam roog yàlla xo ci nga xudo ñis joko njalo xe andune te yande kodu sen na kima pelu ale bo fiya tig wagen nda asal ma korole sutox nen diki kata fiya awagan o hagan oxe philip jogoy sar yal job ndo fen xaga refu yal fanga nda koy xan iyon fo xe andune o ndebu mo te akatun no ku refna te blaise moditini iki asal ma korole sutox nen diki tar philip jogoy sar philip in wetiyanga blaise moditini

a salma koor ale andoona yee ten Jean Diouf Séri yaal Niakhar Ami Diouf a salma koor Ablaye Séri Ami Yala Njulde ndaa koy anda ye in way Maris simna we andoona Maris a rek oxe refna Aïta Diagne Madame Dieng Astou Diémé yin in way simna den

Euh, yaw laxafagan ga a ndigil gay naak i in way content wa émission ne in moƴ nga seen i nandilwa saa su rek i ci anun koy ke ref mo meke fo ci anun ndefes Ami Sène Ami Sène i i fo Babou Sène mhm. Modou Sène Samba Dione mhm. i ma ci an koy fop oh. mhm. i Modou simna de a dakanga ɓeer mene ko ina iyo iyo ina kontaan wa mais gaynak iyo ka jeg asal ma korole no xeyel philippe joge sar foga me warano wago ande iyo iyo waga nanu mo pa ara fo koro maka sal ma koro maka la ande ka jela na ci reer ñaar fo yeng iyo e abisti du waxtaan degu solo la anone kale nana dar xabisi du nana dar iyo fokita wag narim fokita wag narim o jeg anga kala inten xale ko go in ah et terem ligit eh ka wago lay e tene ah haja e kontaan na tena paa rek parce que ketala moom a jiga ala jiga soro o wàccina tey moom maano yo kwa paa laa ndigil billahi ina kontaanaat joko njal gay nag e. o simna nam wafa ngat fop waxanan bete yaar joko njal a paax ya, jërëjëf ya. waaw o xaaga rek u gay sen Uh... waaw jooko a njal oxe andoona yee ten a nda koy nu ande wene ina gilasa waga émission njoktoor yu ngatoora nana ten nana mam jara ju seri soyubu mam jara seri soyubu maxey simnang nda o retanga bo belgique o welaye o wenan giloxa facebook émission njoktoor Dior Diouf nda Ferina Coly yin Babacar Seye yin andoona yee te refu Aliou Dia o xaay bo Italie ndaa simna oxe andoona yee te refu Yane Mbine Pape Moussa Seri Pape Diouf Seri Kafa Diouf o xaaga ref Pape Mamadou o xaay bo Italie a nangilooxa ke andoona yee te refu émission Njoktoor Jokonjal Blaise Medoutine Yal Diop Ndiofène daal di fay fa Ousmane Faye Fatou Faye na lo da wa gi wete prier Birame Sène wa i no tanga no yee ne terfu Blaise moditine i yon fa asal mako o maak andone o xaga no xooyel euh, njaga sosé a gima kima o maak ten lele jama fela parce que kam lay euh, no jam ten fo a xeƴu oxu andoona yee rek buga jam ku ki a jeg jegiro jam ku jegona xano jiko xin jik tikin jam yasam rogo yalo xe fene in jam i yon kilo xa njaga so na jam Vous écoutez Témoin FM 107.0 ndax boo nit ak si waxee àdduna Ousmane Thiané Sarr Aline Badara Sall Ablaye Ndior fa Thérèse Dóor waa gi ba wecce den Alphonse Bakhoum Bernard Ngom nda ɓen xemi na xoyel adjudant Oulimata Faye maxe simna simna a remi Diomaye Sène affaire étrangère nda Etienne Diouf Yala Senghor a leyame tarde kim émission njoktoor nene simnanama Thierno Diouf DG

nda giro gar fay yaal Diouf a maak maxey simnang simna ne we andoona yee o yokorta na radio Témoin FM 107.0 ke inoritna ne directeur général Cheikh Fall Sow fo no mool o yee ten moƴu neew no mbind ne nango simina a coxanaam ten we andoona yee den ndefu groupe témoin fm ndaa Touba xayra waagiim den alo alo waaw joko njal kor xe wo ano fo ma xooyta joko njal a paax Aliou keke mi Birane Birane Sene a ah, oxe ke refu docteur fo maak fe xoyel Birane Sene o seereer a ñowa ceereer a ñoowdanda ceereer jow ka jala paax Aliou mi na joka nga jalo koro maak i kontaan na lool no émission ne ndigil i nakongo nan uh-huh. i njoka nga jal yitam no ko fiyaaro ci ituma xooxa ala sofa paax ndigil biran joka jala paax Aliou nun defu sal no koro maak ke andoona yee nuun way ñaaƴa nges fo no ka jofan na ceereer paam allo allo we mais kam lay nun ndefu asal moko rek andona ye nun we ñaƴa nges fukiran no ka jofanna cosaan fo aada seereer mbamir i mat kaaga rek waru ine aliw nda nun yitam nu mbare teen o lak yaam yitam ndem laytan rek i e, o kiino kiino saarum a ref e, i nda i ngooxanga in fop mhm. mbef na mosanga oxu garna rek xaye a jal ndigil i ceereer na fop oxu refna teen xano ga teen a xooxof nda oxu refna me faroona rek fiya teen Uh-huh. iten taxo itam i njoka njal njoka njal itam a Philippe Diogoy fo waxtaan mosul ta fina a salma koroma ka laga i iyo koy Wow waaw leya ndigi nda koroxe sen i Philippe de ka jeg hmm. eh, ka ta leyna ka na solo a to yakarama ye i andoran mit inan ndorin i i mbodo jamono fa anone. Mm. e ka leye ndax lalay we ga mbag ndax nanam we mbagu puisque nanan ar moom a mayata kam saate fe ama i roog moƴu a maya lool comme sereer i ndefu koy e mm-hmm. ngemanda ke andoona yee te ref cereer ne e i mbaago lay fo fog in parce que o kiino kiin koy ka topatooxa ɓaslum i ndigil to o leŋ ne jega ngel mo simin ɓot ndigil ke Philippe a layna a jeganga ka o laya ten ka o ɓaata ten xa lay in uh, o koor oxe seen i xëy a kay kem layka ten rek mi itam um deɓ teen galang ko jefes e da lokeda mumma lokeda layna dal kam pooge dal ngel wa e danaka ten fagu ten ten waralu fo nana ɗarnene nana ɗarne e i e ngel fa mbagu ten waralu nana ɗarnene yaamo kiino kin digo ga kel fa i mhm. e boya andona ye kel fa fe layanga rek o fi nda o kiino xe andona ye jege kel fa i mhm. e a jega me andona ye maaga wiine cungogong na adna a jega ka andona ye o bugangan xano xij ten lool mhm. i bo tataxa bo a jegooga ma andoona yee nu ta saxitna saxitoota jeg na andoona yee xano fesoran kam no mhm. wiid we i wiin we layanga o fi a jooxangang eh, o mbiñ o xot ma mhm. a layangang o nan mhm. kene koy ten ndetu rete aliou bo a fagat i ngel fa nene ten ɓisiidu xëya na ɗar ne i fo ngiima ɗar ne fo kene fop ta layna daal jega ka ta layna no eh, ken dara foketarima foketarima i hay ami to wagan mo yuko dik rek no no no no ke fi umaten yidam no no kafarna no nana tarnene fo dara foketarima i i layten no dik rek haya kam layutene wo anda yo biya o biya dar faare o jego kolof fig waɗarin duufaɗarin e yo garin hooxa ɗarin taxola dar, i a jego ñambul fo o ngok fo siwandan a keɓel fa a saa ɓoof kam fe se kawataxena ɗar o waaga ɗar to xaya ɗar ngen tan le a ngolwa ɗarong mhm. to nge jegoona a iya yetowa ɗarel mhm. rew we a duga ɗarin mhm. a mbeesa ɗarin a ɓax kaaf ke fo a aarake a ngateta ko mom a yetake kam mbine o xene mbina ɓita ɗarel tapi andi waɗarel to mhm. sakaɗar ulang fe mhm. pambe ke ku palke a ngumaɗarel win we no mbinne ok waɗar to anak nanaɗar aku kom to mo an kaya yaaɗar moƴu o leyj naxa ɓiy fop to ku yaqna o kiin sutwe i kaaga a ref ke bug an mo ɓaat no ke andoona yee filipa a layu nona nanaɗar ya ku anu ka xot no ka nana nanaɗar rek mhm.

a ah, refa ka ke termida bo pare ndiki na i mbaagu mbi bo saafara kaaga rek parce que ino ka lay a ci i ngemandox rek njoktoor ke andoona yee te refu cosaan fo aada seereer to andaam ee émission njoktoor jumaling fu refna te ref o xet o maak ole rek kam lay ku andoona yee a waajik kam saax le o seereer jega teen o ɓayum to yaakaaram ne koy i mbara njang ɓasil in e ndako njoktoor fo den bo kiino kiin a ɗiit ne ta comme njofat ar a jega ka andoona e eh, abi gal eh. aussi xa yakaro ye te i mbagu mbi rek bo kaga sereer we mbaño mbog teen i ke yakaruma dal aliw ten refu ye mm. o kiino kiin eh, bo inora ah, saate of garida mm-hmm. a jega ke o nel ndax o garanga o moofit kaaga i a jega koy pin ka andoona yee itam xaƴa ndoxnitatee kaaga mm-hmm. yaam adna fe ten ñaaƴu boya andoona yee o kiino kiin ka yar xooxum ka yar xooxum i wiin we numtiidanga fa yar koy fanam xana jeg mhm. i nana na xana waaju nda mhm. kaaga numtu wiin ange ndax o waajnana ɓarne no wiin we xana jafeñ yaam o kiino kiin xaƴa ko dame ke saqoona kaga rek waro waago ñaaƴel kam adna fe wa o koor oxe seen ɗegirong sax kon ko bugole laalay we ga mbag ko la laalay we ga mbag ni nanan we mbagu nanan we mbagu andaya philippe a leya ye mhm. nof nanan no xoox barke saxa i lalay we leya fo xaye nda nan we koy den mbagu lalay we itam a jega ten wa ando naye mbo xaye leyate yaam ne adna fe saxitna anda ye yaaga ku ga ona ta xewa o mbiño lakas o ley teen nda ndiiki lek lek o ɓeko donof ma ando naye o kiina ley mbiya xa warong teen to kene fop jegooge jegooge te fi lalay we lalay we a mbañwa a mbañwa nanan itama jega wa madna nana xayda o kii Philippe a leyna den jegu la lay mbage nanan den mbagu nanan den mbagu yaam a jega waana laya a mbina yarangina nga koka yarong leeg leeg xaƴa no mbinum te hmm. jeg ka andoona yee nantino ma nantino maaga hmm. ndaa o sutu te te jeg yar fa lakas fa andoona yee ko nanan comme keke nu mbi'aa émission keke hmm. ka andoona yee xan nu eh, eh, mbexey bo wiin we a nqota ƭat ale a ƭata paax ale hananan da o hata ga o bin o bin ta kan boy andona e kila ina e maga ko wet kan ko wet kan i tafi e dikke ho mhm. ajega lalai mhm. e jegate na na ni tam jegate jegate i yamina ngaja tan poke andona e o bala ifa andona e, e. Mhm. hanan ba go ta ikta ga nyaw tikin yamne adna be daretna i hananan tigi tam gi matarin boy andona e, e fi itkinu ne andona e na ga lede hotel

i layaa o fogseereere ee, fat mhm. da ngaroyo i ee, sofra a xalaat no émission ne yaam kene som tax ta ino so moƴo ndam yitam ke i njeg na moƴo ta ik teen to yitam mhm. i njega wiin mayu wa andoona yee a mba o ngeenoxa ina tam ta in teen mhm. i nen nena aliw in we o xeeke refna ten fo lakas lakas we andoona yee wey teen fop i in fop seereer fat i ande keke in njegun i ngar ndam ten so yitam ta ik no ke andoona yee del in i ngostusate fa ne i yafeena i mbexey itam bo yarit neen xa ɓiy xaƴa xana jafeñ ndaa itam refe ka andoona yee waagooxee ke andoona yee ten i mbaagu o coox xa ɓiy in no ka saɗikna bo paap ke in a sawarna in ten refu ne da yaritna in yarit naaga xa ɓiy in to kaaga waagooxa alim kaaga rek bugum o xaƴito fog seereer im layaa den i moƴo ngorgorloox a paax ndamir itam to jalikoyo Uh, ah, jokonjal uh, eh, ingid mang lange wenen gilo hogna ajega oda yo makna 107.0 jokonjal uh, eh, Cordoba jokonjal parali jokonjal Sofina Bartela Omaina Wal gidma jokonjal oxe andone te suto hundiki oxa da noxe le docteur Biran Sen aref kel fofa Assemblée nationale a jala ñal fonxes no ke andoona yee ka jofna seereer a paam fo o cujur poxe Jean Benoît Bakhoum layne te ceenaam a ten daba Paul Made Jean François Nassim, le grand professeur Boucar Diouf Fassal a salma le grand Youf Lamine Bar Diouf junior lom fay den fop waay no cosaan Toko den in tokowalu yin أسلم قرآن لنا خير لو بول بكر جاي بإلوا إبراهيم سار جاك يوكينا كيلو كورو خينا خير ميديا كوفو بيرسين دا باب مات باويتشو سيمنا نام جروب تشو سان فوب fo andoona yee waxey maaga rek jangi simin ne ten layaa den cosaan fo aada seereer yo ɓeelu in aci i puus ta jof took reta bo Grand Yoff ci'ana Modou Lamine waaga ndef seereer wa andoona yee émission Njoktoor ka fela den ma simnanaam Ousmane a Thiandoum jala ena ba umilane ya sam rogo yalo xeyal fan tokum simna we anone de def tangis waxu anone waxe gina tangis yo xorta maga mi xey o semir den refum émission joktor na 107.0 laye wene yo xorta men le directeur général a doxana den refu pour l'année anel cheikh falsou opadi ino La métaphore de refna wiin we le panel de contingent 90 ino y en a lang oxu refna fo o tukloŋ fo o ƴola njang yo fo lakas we nuun kene la 107.0. retanga bo kor masar xam soɓ maaga a kaaf a Diouf seeri Pape maxey simnang o xaaga ref ya Mamadou Diouf nda la grande infirmière Astou seeri Ablaye Taliba Bamba Dema Ndene Séri Marie Ndene Pape Saliou maxey simnang nda le grand bâtisseur Ablaye seeri Ami Diouf o xaaga ref ya Pape Issa Fakhadi rose tin jangi kene bo amba fay kiyana ami fay docteur sen seri bernadi jangi kene nda wagimo wecce fat kine sen o xato xay bo parcelle la directrice asa fat kine jalla calel mosu noke andone tere fu cosaan fo ada fat kine sen jangi

زامبون وباهم واجانك أوفيا أفلا لا نجيل جاءنا كارخنا كنا لا يام أسير لا يخدو نمو خطو نرك تيري رخب لا ماغا أكيمك أكيمك أمبلا أسال ما cosaan séeréer la jox toog état boo ñaari tali si naa xam ne tene Assane Ndiaye chéri Maguette tene Yacine Khaliyin nda faatu fa daba waaga jigéen Filippo FM 107.0 un des pays c'est le Go 6 ngeno jurug nduɗo a jurug nduɗo ene way sumina jurug nduɗo fof o waaw mais a naatanaamina wiɗo omar diouf a ah, laandigi laandigila noon tena aya baara diouf hadi diouf eyi eh, ndigil noon tena ibrahima diouf omar res ndigil noon tena dib diouf o jurug ñoojol watongo diouf ndigil noon ten naatana diouf tawe mete banaamo ñaatali tuna mm, fof dajare ako ndiki ɓe maget juuf kaji ka andone philippe jogoy saroleyan ndiki no nana ar ndiki ndik anda ka oleyan nana ar haaley ko ɓe nanaarnaga xa wagurime o wa inyo kanjala maget faga sukoto no ba ko leke agen jurum no lur dane simna ma jak ngur yalla no lur dar ta bota te simna ambatan jom agar bi soxna fa mohammed dar ta liberté ci xam simna mamadou ba fasaliba radio radio kanjol fogole serna nek lo xala radio 107.0 la dele jumani fu rafna arfa rek no waxtu be diko be tala iyon fa joel barça allez sa say faxe ke roga fi la jame ndax ñot nox nous na programme wax no waxtaanee 77 532 31 04. gidma asal makorale su tax Radio Témoin FM 107.0. Thank you.

yawma heddi ma nappa mo peejo wa adi aɗa ka o leyano ke anone te ɓaxtanta ta ref na naqar nu ndef wa anone roog moƴugano a qotoxa no ndut maak ne refna université cheikh anta diop yakaramaɗe maaga na naqar faaxe maaga maye faaxe ten sax leya ndigil faaxe ten parce que ano mbaɗa xam xam iyo kona leytama naga jirtu parfaitement flipala ye nana ndax mbalamta ndax lalay den mbagu tax nana mbiren mbagu mlaidellengen mageɗaɗi komba jofa yam ndigene ka waja towatino uh, qoxo to ndetangan wina leya to nanangan mhm. awa ret ba mbago ley tolu leyke to mhm. a fiyangan me bananan tamit mhm. awa jina ka refnana den ten taxu en tant que ndemanam no ku ina fona ka ref wina ka ref koɓalen adni ten o nanan afiyan ran o abu dawji ni ko widam ka dal ana comparan be do ada mo dal ko la ko gam wa gar dal asulaga e la ko la dal wa mo dam maga wa ko ri gar def khataman ko khanu ne nu en dut mat ne e to ya karama le ma ko abat maga khaje on wax to ya karama aji ka sal mo ko rama ko ne o jalla ci le musu no ka yo fon sere ne fo mbamir ne na pol bu ko jayin birani philippine e a mayoyoten e nu tan émission joktor mbiyen émission noon bo alamane jumani ka fadaga étudiake anone séréer o fop inor tan sa séréer ke fop o wenen ɗo haala radio 107 point 0 adik anda ka o ɗogaden ha doxin kogo den um eka ene adona kora kene nanga pala bi tomne wa nanga pala bi ni re allo allo oui ma xene gi lo

107.0. Allô? Oui, allô? ça, tout ça. haa ɗofi kowolen yo tay ko ɗum ɗo o gramare enen ɗo fa o ɓuuri noon a take bandal noon taka ɗo ko hama fum ɗo kaɗum yaɓanno tampe ɗo tan warede na sante ɗo digam yakar fahe kan adi nanan nana muse ko muse kenala e digan biran biran sen docteur biran saɗi nekala e ɗuna nanan en aɗon fof kafu o ina na ko ban to jani ani tenan ya manan ke hawo ni ya be hawo na ko ko ya dala gamre o na ba to to mo ya mo to ta na an kan o ya kai den to entonces para yo ya ma ba wa ko la ya wa ko

bima ikamumbamya wona tere tamina jango na papa amuya bakoyna ni lo ha tema ema la nigil den fo i resanya na lo ha joko jal kori joko jal dia ni ni ni bu na na ya wa wa fier den tere am wa fier den tere den fo boy kam tere ni den tere ni ni ma den ma ya pa den fo boy lan go hala radio 107.0 joko jal kori Gracias. Vous écoutez Témoin 107.0. wala wuye aliou am naa ko. waaw daan naa ko déglu bi ma nekkee ci kii waaw mais tamit ak réseaux sociaux yi euh, tax na ba ku ku kuy def émission Dakar nga mën ko seetaan partout euh, dans le monde. waaw Facebook waaw te muy dëgg. voilà te ci loolu laa euh, nekk di seetaan après ma ne vraiment il faut ma woote. waaw dëgg la. voilà pour d'abord yow féliciter la. directeur. mais bu dee saa séeréer ay jàngu joolaa lañu <laughs>

Eh, nga am doom tuddee ko sa sa sa waajur mhm. bu jigéen wala bu bu góor mhm. nga sama yaay la mhm. sama pap la donc kenn du ko laal da nga koy wax di foo ba ci biir dem dem ba un certain moment mu ne koo xamante loo xamante ne dëgg uh-huh. ku ko rek mu nga mer dëgg la uh-huh. doom doom dafa sori uh, ci waajur mais tant que ñun bàyyi ñu di jàpp ni man li ma jur moo gën keneen lu mu jur daal dafa war a nekk ci ginnaaw man li ma jur mooy indi tey xale yi bu ñu tàmmee kenn du leen wax bàyyil nga yar ko ci loo xamante ne euh, naka sunu loolu la. waaw nga leen lu ñu dégg. ñooñu bu ñu demee ba dajaloo ci benn groupe. ñooñu kenn mënul wax ba ñu dégg. donc loolu mooy entraînement bu njëkk. voilà donc euh, yooyu ak abandon euh, waajur yi mhm. nekk loo xamante ne dafa mel ni ñun feebaru euh, abandon moo moo moo moo dal Sénégal mhm. feebar abandon mooy lan mhm. nga ne yow da liggéey da ngay wàcc tardivement sa sa soxna liggéey wàcc tardivement lu tax ngeen jur ay doom man bu dee sax vraiment dinaa jënd oto boo du ma ko dawal jarul koy ma koy jënd. <laughs>

faalewuma ko donc kenn du ko laal ak koo xamante kenn yaru ko mhm. ñaar yi bu ñu demee ba dajaloo ci biir société nga xam ni masiba la mhm. te loolu moo nekk di daal Sénégal mhm. ñu bàyyi réseaux sociaux yi di yar suñu doom yi ñu bàyyi képp koo xamante ne da ngay gis ay kër quatre télé ñu ci biir wala ñaar télé télé xale yi télé mag yi télé paa bi ak mère bi parce que tout yàlla moo leen jox euh, alal au lieu que ngeen dugal ko ci leneen ngeen jël di jënd ay télé ay téléphone di ja jënd ay connexion seen doom yoo xamante ne ay sept ans huit ans lañu yor lañu am ñooñu nga yaakaar ne moom mun na yar boppam ba mun a nekk ci société boo xamante ne kenn du wax ba ba mu noppi. beneen culture moo koy yar. donc euh, mu nekk lu dangereux. d'accord nga gis tey société Sénégal de telle sorte da ngay dégg ay suicide. tentative de suicide. ay sos xale bu ndaw taaxa taxaw di sos euh, mag euh, yaa ngi dégg léegi-léegi ne ci situation affaire Ousmane Sonko bi kenn nawul Sonko defu ko mais tey xale bu demee bu am vingt ans vingt deux ans wala wax yeneen wax yi man je pense que ah <laughs> na ku ne te indi nañu fi benn euh, loi boo xamante ne criminalisant ay viol aw ma lan ak lan yooyu dina sànq ñu bëri parce que ñun suñu société xëy na kenn euh, waxul lii baax na mais nañu moytu trop trop parce que nit ñi xale yi surtout dañoo dëgër bopp de telle sorte que hmm. entêtement bi ngay wax noonu nekk na loo xamante ne sujet bu important la mais bu ñu ko jëlee ci par parloolu kenn du kenn du ci jëlee njëriñ. am na solo directeur am na solo kontaan naa si yow trop trop trop. merci beaucoup Aliou di fàttali ne yaay le directeur général de Zik FM ñu lay gërëm bu baax a baax a baax. Zik TV Zik TV Zik TV Zik TV. merci voilà merci directeur jërëjëf jërëjëf jërëjëf directeur. merci. xagare o yola xanu ne te ando no télévision fe ref na zigen sor ale a fo na zigen sor a fo facebook anan giloxa a ga ki i baxtanta ale xana roka lay fa in i ngid mana paax famara ñasi waaw joko njal a paax a paax a paax o fogole sereer nanan giloxa la radio 107 point 0 uh, wita lanu ne nu na emission jokto rek uh, lia kara male ibaro mbago yon ten baktan ta ki amne ere fu alo wa akada ou TMAFM 107.0. sàkku saaro ndox yaay da ko jël awlaayu maak rek day mel boo ci gën seer boo gi saax vidéo yi nag doo xàkk def na la rajo Thiem FM 107 point 0 cosaan fo adda séeréer ka fel cosaan fo adda séeréer ka faax cosaan fo adda séeréer ka mos i mbara njoktoor ke andoona yee rek te ref o kiin a jofandana paam mbaxtaanin ten yoona ten fo a salmokor a maak ke wene ñoowa kam saax le fo ne jumanin fu refna jega no waxtu ɓetik bo ɓeta ɗak bokk nañu xarit noonu Aliou Diouf ak kenn. vous écoutez Témoin FM 107.0. simna rek andoona yee oy topp Facebook fe anan gilooxa Seydina Omar Sall mbexey sinang yàlla moo na miracle ki andoona yee te Cheikh Omar Diop xaaj boobu Pikine i ko taf Brom Fleur Touba Khaira. simna a Assane Ndiaye oy facebook fe Molo Baba Mal Aliou Dia Khaboy Italie simna xe andoona Moussa Ciss den fop oy facebook fe anan gilooxa la radio Témoin FM 107.0 sàkku saar ndaa nu ne 77 532 31 0 kam nu mbog no waxtaan le émission njoktoor radio Tema FM 107

我，我做好。 Oh, étoile sabre mort. ziyaara nga paax waaye ndax saate fa maxi gëna saate fe nane joyin mbakoore wax waaw ndigil sim ni den a waaw maxey na gilooxan waaw vraiment rapide rek rafetlu waa émission bi rek te ref ndigil vraiment dig ndigil ndigil ndigil daan me vraiment émission bi jël solo ndigil

ko goto amin amin soñowan soñowan eyi yo maɗena ɗi goɗo nottu e o ligneji ga ngelu masi min gotto a o ligneji ga ngelu masi min gotto soda min bugin ñowan teref ndegil ana maɗe nunama 107 point 0 jumali fu refna waxtu ɗi bo ɓeta ɗak aname ke inar ne ɓisid fo asal mokoroke aname xa ref ka jigno solo yo e desan joko njala paaxo koroxe ma Jean-Paul Cory Diouf encore waaw Jean-Paul Cory Diouf asal ma ko ma garan fe université ay jale no sama ko batas teram digil aussi mon au pas aussi donc santal la kala pas parce que le explicateur le président am urgent aussi digil digil digil voilà le président am ko ba tax it to be na pas go ji ñewal na de waaw ka ji ka ci xalam na université am bu kéren na ñoo wona ñoo dalal exact exactement rek dem yaatena partage so mak fa mak fa yañu vraiment vraiment la sax abandonnan émission nous émission ñoktoro vraiment li fara parti bon sosi na la bon la mi fat mi tel groupe son mat arale groupe son yori wala fi na la fi rete sere asnandi dum e tawi dum ndi aussi ndigal ndigal ndigal vraiment me rete na la na par par ba ini sinna den joxal dina jala ba exactement me la nek ko ci kanam jam jam fa nek joko jala woytu ji no faalan mi yeesaɓe an o radio maɓɓe no yo gonɗo dati hen wekkaɗi on dannoɓe amin min on mbiyen parana yoɗo dati erene moon waw kan bugal dekkero gati soye ati inam tahis rek hano fa inchallahu a welaga o wekala inchallah joko jal koro ma wa joko jal koro jum alimu joko jal paax vraiment content nowa paax a paax a paax joko jal merci beaucoup merci Alama jindingo sadamadayo waaw Diofior arrondissement ku génn Diofior Inox Ndiayo ndax ku génn Diouroup Inox Ndiayo génn Ndoundour Inox Ndiayo génn Diarekh Inox Ndiayo génn Diohine Inox Ndiayo ndax rek xur na séeréer Inox Ndiayo waagit ma sant ke joofeer de facay xaano le tele xolu biya xam ne moo fi ko jégoon a sogoy tooxa ba dégg ne jigaa ngelu ma simin bot un deux trois c'est la radio Témoin waxtu wani fo refna refa no waxtu ɓetik bo waxtu ɓeta ɗax ibla ne émission maak a ref kom caate ke an cosaan ken caate fe andaam ale in way mbaja pour ndef jonwaar an na nuun no cosaan den fo aada den

himɓene bo duwa waɗi tiɗa koye a jonwar a silig bo ambe fada ngara ƴeta jonwar ba pare haɗi ɗoka nuna jonwar ndet bo sango mar ko ɗeɓe xuno ñowa no saaxle fo gila saax a sinig bo ambe o an saaxle jonwar naaga i topatkan no caate ke de ta cosaan kene saate ke bogin koy fa a salmokora maak ke andoona yee dinañ apporté waat na émission Joktor Fiore Tambelli law sadde ke ndef leng a ndefa leng a ɓiy diofiyor o a ɓiy sereer o a ɓiy sénégal o o numtooxa rek simna yee sereer refo o kam saax le mbit gila saax maxey jokonga njal a paax laya ne moƴo dam ta xiis i ngidma salma andoona yee owey nqijano cosaan seereer kiin o kiin fada ndam tam xam xaƴaam cosaan seereer a fela Ndour we ngara teen Joola we ngara yee ten refu le général Cheikh Fat Sow andoona yee ka adoox i toogum o tuknoor o cosaan aada seereer DG merci laa ɗo ne rexeɗana fof jam nem leytan jumani fu refna rek kam leyanu ne oxuna o jeg jam oxuna xiɗa rek jam a xiɗong na to jegiro jam ku jegona xano jikoxin kiin jam yasam roog yaar xijik na fo waag fop a cee in jam so andama ne koy i janga Simon Sène i tagorka nuun fo oxe andoona ye te refu tuɗoloxe o padoxe in Baba Maal doona no mbay Moloba te ceenamo ten we andoona ye ten refu radio Tema FM anda mbaɗe ilalude jam fo jam boji woni fena gara nafa ɗon fo jam anda mbaɗe gam yo 107 point 0 la radio leader témoin fm 107 point 0 ñaña nangon